dañ koy naxarlu dañ koy naxarlu ko mais aussi jaale su fekkee information yi ñu jot c'est avéré hmm. que ne y a en vies que y a eu des blessés jaale ñuy gaañu ñaan yàlla xare leen ajana di ñaanal aussi ñi blessé di leen ñaanal ñi dal nañu teel a recouvrer leur santé il faut dire que il faut déplorer cet recrudescence de de violence parce que aussi scène publique la politique nekkul terrain wu violence politique violence tax koo jóg politique li ko taxoon jóg moom mooy euh, atténuer la violence mbala éradiquer la violence parce que fekkoon ku ëpp sa morom doole mm. jaay ko ko dañuy dund ci jungle mais politique dafa bëgg a ñëw vraiment pour humaniser pour véritablement civiliser les populations mais ce qu'on au Sénégal c'est que depuis un certain temps la politique veut être euh, érigée en norme en règle ce qui n'est pas du tout normal bon c'est c'est c'est man ça m'a un peu paru bizarre quand j'ai lu wala quand j'ai entendu dire que y un communiqué que le feu Pastef a sorti di déplorer di cette cette cette cette cette ces ces trucs la man dafa jaaxal si on sait que dans ce terrain politique la c'est le parti qui incarne ou qui est l'incarnation en valeur absolue de la violence. donc eh, parti boobu noonu moom mooy bi nga xam ne moom mooy mandargal. <laughs>

Euh, non. Diagne non Diagne déglu ma la Diagne da ngay déglu non da ngay déglu incarné wala bëgg da ngay bi dafa am yoon du heure bu la neex ngay jël ngay jël la parole. d'accord nous sommes de grandes personnes. écoutez écoutez bëgg ñu indi ci benn dynamique nous sommes de grandes personnes. nañu respecté ñu ñuy seetaan. du dëgg ñu dégloonte bu paree mhm. di nga am temps de parole pour répliquer justement. allez-y donc je disais que c'est parti boobu moom mooy jëmmal violence verbale moom mooy jëmmal yaradiku moom mooy jëmmal. jaay doole xeex ak xuloo xeex parce que su fekkee ne bon ele kii euh, gis nañ gis nañu ce qui s'est passé en mars 2021 gis ce qui s'est passé au mois de juin gis tout récemment li fi commencé di am te à chaque fois ce son des leaders de ces partis ñoom ñooy woo la population et particulièrement la jeunesse disons une partie de la jeunesse qui amoon na avis n'est pas tout à fait consciente des enjeux de l'heure pour les inviter à l'insurrection pour les pour woo leen ci ci xeex ci xuloo ci toj am amul par ci parcours bi ñu def de vingt 2021 à aujourd'hui ba tey 2021 ba suñu génn yàlla tey jii amul benn vidéo man benn image bu ñu jàpp un un jeune de la coalition boo Bokk Yaakaar gis mu toj Auchan gis ko mu toj Total gis ko mu mu mu lakk këru këru këru këru opposant wala yu demee noonu mais on sait que de l'autre côté de notre côté à chaque fois y a ay këru ay këru leader taal nañ leen ay auto leader taal nañ leen ay. Euh, mais la li... violence c'est justement parce que ñoom ñoom ñooy prôné si on parle de gatsa gatsa on pense à qui si on parle de suñu suñu waxee gatsa gatsa ci ban partie la ñuy xalaat ñu waxee euh, mortal combat le terme n'est pas de trop ci ban parti la ñuy xalaat donc c'est dire que y a tellement un un vocabulaire un jargon très péjoratif et très pessimiste à déplorer boo xam ne nii. qui fait véritablement seen vocabulaire mooy waa waa Pastef ah, ak ak bon cette opposition la non mais monsieur Diagne man j'ai beaucoup de respect pour vous je sais que vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes un un un bon un un bon pastefien pour ne pas dire un fanatique mais nag li ma bëgg ñu wax mooy na ñu xam ne politique question de raison la du fanatisme d'accord